presque ñaari rendez-vous la sax quand même. Mhm. bi ci jiitu mooy bëgg na waxtaan ak sénégalais yi ci nga xam ni foofu la fekk réew mi parce que tout à l'heure yaa ngi wax ni juróom-benn weer yi juróom-benn weer yi doy waar la koomu réew mi mi ngi ci jafe-jafe joxe nga say explication mais moom li nga xam ni moom la ñu expliqué ñoom gouvernement bi mooy li ñu fi fekk xal na koomu réew mi. Mhm. te bëgg nañ ci waxtaan askan wi gindiku ci ëllëg incha allah ci alxames ci lan ngay xaar ci lu mel noonu yow. non weddiwu ma euh, ni que liñ fa fekk xëy na baax na xëy na baaxu maa ngi xaar ñu génne la ñu wax mais aussi mbir te da koy teg ci yoon da koy teg ci yoon xam nga lan la moo di day wax suba loi sur la transparence ndax ni hmm? gouvernement bu régime buy soog a ñëw day def rapport fi mu fekk réew mi dans les trois premiers mois. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñi ngi ko installé le 2 avril. kon le 2 mai le 2 juin le 2 juillet def na trois mois kon waroon dañu def rapport d' exécution euh, euh, situation pays bi. loolu la loolu la loi bi wax. mu ni buñ ko defee dañ ko jébbal cour des comptes mu auditer li gouvernement bi wax cour des comptes am na trois mois pour def ko loolu la loi bi wax le septembre bi passé président daal bi taxaw ni que def nañu situation d' exécution euh, rapport réew mi gouvernement bi dina ci dellu si. Hmm? wax ci masse salariale bi. waxi président rek laay wax. waaw ah, loolu laa lay wax nii la lay wax nii. président bi rek laay nettali. Mhm. le 17 septembre. journal Le Quotidien par la plume de Mohamed Gueye daal di ni gouvernement bi de loi bi respecté wu ko ndax trois mois la waroon def rapport am jox ko Cour des comptes saytu ko pendant trois mois. Hmm? ba ko quotidien bindee xamal lu dañoo daal di daw ca ëllëg sa dem yóbbu rapport bi cour des comptes yóbbuguñ ko woon kon tardé nañu six mois. kon forclos nañ ci délai yi forclos nañ ci délai yi il a fallu ko quotidien bind ko ñoom ñu daw soog a yóbbu rapport bi ñu forclos ci délai yi cour des hmm? parce que xalaatoon naa di ma laaj lii bi may ñëw damaa vérifier ne ndax ñoom. cet audit bi pare na parce que ñu ngi ko jox après le 17 septembre kon mënaguñ koo def fii ak une semaine te 3 mois leen yoon may Cour des comptes am ñu fay liggéey ni ma ñun suñu trois mois yi ñu yoon may dañ koy def kon Ousmane Sonko rapport boobu mu yor Cour des comptes koo war a auditer soog koo publier te du premier ministre mooy publier rapport Cour des comptes Cour des comptes mooy publier rapport la mu waroon la ko waroon moom mooy. def rapport bi jébbal ko cour de comptes cour des comptes xool ba xam rapport bi li ñu ci wax jaaru naa am ndéet su paree cour des comptes publier ko cour des comptes mooy publier rapport bi di ko def ci site di def rapport yi ñëpp di ko jot am ndéet ab daam amul kon bu premier ministre dikkee taxaw bëgg a jël place taxawaayu cour cour des comptes joxul document bi cour des comptes ci jamono yi bàyyi ko cour des comptes xoolu ko nga bëgg a dikk wax xëy na wax ja moom la engagé mais engagé wul cour des comptes néew ma nag la muy wax dëgg am dëgg la waxuma ko de mais damay wax manquément yi ci nekk loolu loi bi la kon jalgati na loi la muy wax suba bu neexee keneen mu ni waxi Ousmane Sonko la comme mu doon wax démb ak bërki démb su àndoon su amoon sago nag xaar ba Cour des comptes defal ko audit tam ni ko sa rapport bi baax na lii moo ci jaadu bu ko neexee mu wax lu mu bëgg a wax mais loolu benn poñ la deuxième poñ bi franchement Ousmane dafa def erreur waru woon a def rafa affaire bi dem suba waru kon def suba Ousmane Sonko suba la anniversaire bateau la Joola deux mille personnes lu ko ëpp dee nañ ci at mu ne ñu koy màggal di ñaanal nit ñi def recueillement taxul ñu jëlee ko dix heures yóbbu ko seize heures. non non dix heures lañ ko programmé non mais justement loolu tax ñu changé ko. mën def dafa baaxul pour yow. non non non non woote baaxul pour yow non ah, kay gindi réew mi baax na mais dama ne bis bee baaxut xam tax bis bi baaxut moo di bis ba nga xam ne jour recueillement la. jurul teewlu la ci am réew polémique politique waru fa am wala xëccoo wala leneen Amérique gii barki dem boo njaay 11 septembre xam nga dañ jekk ci campagne électorale mhm. Trump ak de di yàkkante lu ne le 11 mhm. septembre ñëpp dañoo arrêté campagne bi dem ground zéro julli mhm. ñaan la campagne s'était arrêtée ce jour-là pour wormaal ñi nga xam ne ñoo génn àdduna kon man posture boobu laa doon xaar xam nga tax ba ko doon xaar ci moom encore tey kuy jom kuy jooy bato la Joola Ousmane Sonko la ci war a jiitu. ndax danaan dem anniversaire la joolaa di wax naan damay renflouer bato bi damay def li damay def lële mu ñoroon ko mu jàpp ni que gouvernement Sénégal yi fi jaar muy Ablaye Wade ak Macky Sall dañoo yaafuus ci dossier boobu kon moom bu ci nekkoon war na koo gën a jox dëjë gëdd. beneen raison ma yokk ko ci moom moo nekkoon maire de Ziguinchor ñu ëpp ca ca ñàkk seen bakkan Ziguinchor est-ce que dégg nga ko bam bañ koy changer ci lu officiel. non même lu officielul. ah bon oui même lu officiel mais oui même bañ koy xam nga sax même bu même bu fekkoon dafa dem visite privée moom bañ koy changer mairie Ziguinchor est-ce que dem na fa lettre la leen yónnee ña ko fal def ko maire bañ koy remplacer demul lettre la yónnee kon occasion loolu xëy na kon bu demoon Ziguinchor pour man jàpp naa ni erreur la de communication erreur de taxawaay la ci moom bu fekkee c'est pas trop tard na jël avion suba mu dem Ziguinchor. recueillir sur le bateau de Joola dellusiwaat xaj xaj na fi en tant que premier ministre mën na ko def jóge jël na fi avion état dem voté ji Ziguinchor dellusiwaat ci bis bi kon war naa mën a jël avion état dem. mais ma jàmbal ñu leeral que ni. Hmm? Hmm? ñi ngi ko programme woon dix heures. non en tout cas programme officiel seize heures mais xam nga gouvernement dala jox programme. waaw ni la. te loolu dem Ziguinchor ñëwaat xaj na fi. waaw mais non xam nga agenda chef de l' nag ak premier ministre dañ xam nga gisoo ko ci kon bu ko wutal lay. non utaluma ko lay. non non mais non xam nga aussi. pardon des faits non utaluma ko lay. il faut xam nga dañ la naan premier ministre. li ma lay wax aussi ay fait la. non mais 10 heures laa gis communiqué après ma gisaat beneen communiqué boo xam ne changé na ko yóbbu ko 16 heures. mooy takkusaan waaw xam nga bu ma dikkoon boo dikkoon ñu changé nañ ko yóbbu ko takkusaan. bu ñu defoon ni 10 heures premier ministre dem na Ziguinchor. man nangu ni activité programme na ko ndax agenda agenda la kon bu ñu ko ci bindee rek ma nangu ko mais bindaguñ ko ci bu fekkee dañ ko ci bind te man gisuma ko ngeen ma bind nañ ko ci mais bu fekkee binduñu ko ci te war naa mën a nekk premier ministre am na amul beneen activité bu ko tënk te gisuma lu ko war a mën a tënk suba yaa xayti na jël avion mu dem Ziguinchor recueillir bateau le Joola dellu si waat def programme li présenté bu ma sañoon sax du ko def suba da koy def ginnaaw suba wala mu defoon ko euh, euh, tey lan moo fi yàkkamti bañ koy def suba nu ñu ko woon def tey wala ñu def ko ginnaaw suba entre suba ak ginnaaw suba lu fi dox xam nga état doo ko ci sa mbakkan ci désinvolture da ngay bàyyi xel ci ñi nga mën a heurter. ok d'accord parce que aussi am réew boo ko bu lay jiitalee da war a mat kilifa wuuf leen te loolu dafa manqué nag. ma papa nga léegi jàmbal. Euh, wax nga léegi ni say mbokk xam nañ la xam nañ sa taxawaay ci ak seeni dëkk la. non laa gis communiqué après ma gisaat beneen communiqué boo xam ni changé na ko yóbbu ko 16 heures. mooy takkusaan xam nga bu dikkoon boo dikkoon ñu changé nañ ko yóbbu ko takkusaan bu ñu defoon ko ndax agenda agenda officiel la kon bu ñu ko ci bindee rek ma nangu ko ba bindaguñ ko ci bu fekkee dañ ko ci bind te man gisuma ko ngeen ma bind nañ ko ci mais bu fekkee binduñu ko ci te war naa mën a nekk premier ministre am na amul beneen activité bu ko tënk te gisuma lu ko war a mën a tënk suba yaa xayti na jël avion mu dem Ziguinchor recueillir bateau le joolaal dellu si waat def pro li présenté bu ma sañoon sax du ko def suba da koy def ginnaaw suba wala mu defoon ko euh, tey lan moo fi yàkkamti bañ koy def suba. nu ñu ko woon def tey wala ñu def ko ginnaaw suba entre su ak ginnaaw suba lu fi dox xam nga état doo ko gérer ci sa bakkan ci désinvolture da ngay bàyyi xel ci ñi nga mën a heurter. ok d'accord que aussi am réew boo ko bu ñu lay jiitalee da nga war a mat kilifa wuuf leen te loolu dafa manqué nag. ma papa nga léegi ma jàmbal. Euh, wax nga léegi ni say mbokk xam nañ la xam nañ sa taxawaay ci ak say seeni dëkk.